waaw ni ma ko dundee mooy euh, am ci lu lu ma métti lool sax parce que dafa nekk ay jigéen ak euh, boo xoolee ñëpp ay jigéen lañu ñu nga xam ne de un seen yaay dundul seen papa dundul ñu waroon a am aussi taxawaay te taxawaay bi sooxe lool ñu ànd ak aussi seen ay frères mais euh, ñun dañoo sollicité ñoom dañoo dañoo boole ak ak ñoom ñu déplacé wu ñëw kër ga. expliquer ñu faire affaire yëpp nu mu démé jox ñu ay papier ñu na and ak ñom itam ci ci lolu pour itam lepp lo xamné lu and ak seen akal ak seen yelef ken bañ ko salfañé té buñ ko salfañé aussi ñun suñu wara gar lay doonu tam ñu taxaw ne li kat jaaduwul li kat du yoon té itam dañ ko wara dañ ko wara rectifier dañ ko wara régler kon japp nañ ne ñun dañuy and ak ñom ba kérok procédure bi di jeex loolu moo tax

amna ci lu bëri lo xamné tay tey dañoo jàpp ne ñun en tant que défenseur des droits humains amna lu bëri lo xamné yenn wul mana ci ni ñu doxalé ak famille bi parce que famille bi amna ñu problème ak seen benn frère mais procédure bi nu mu démé ba tay ñu am kuñ ci emprisonné euh nu mu doxé euh, jaadul parce que nit ki bokoy koy ma ñëw ci téye bi bokoy koy téye dañ koy yóbbul convocation signifier que que né li ak li kat lañ lay topé kay wuy suñu wala mu and ak mu and ak yeen mais ñëw woo téléphone nit ki ne ko kaay wuyu commissariat tëju sax place am xamoo lan la fa bàyyi mu ñëw nga ne ko non dama lay téye procureur nee na naa la tey tegu tëjul place ci guddi gi la ñu déplacé wu dem ba ca place ba jël image ci place bi mu bàyyi fa xaalisam bàyyi fa alalam loolu lu jaaduwul la te warul woon demee noonu dans un pays de droit surtout fii nga xam ne mooy Tambacounda vraiment ñu koy déplorer bu baax a baax te di ko ñaawlu di wax ne wax dëgg yàlla alkaat yi mooy homme de homme de loi am na droit téye ku mu war a téye su ko tegee si yoon mais itam nu mu koy téye dafa war a ànd ak àq ak yelleefu doomu aadama te dossier bi aussi ni ñu ko gisee dafa xaw a am gaawantu parce que am na plant yi nga xam ne dugal nañ ko génnagul euh, eggagul fu mu war a egg am na enquête yi nga xam ne sax ñu ngi woon en cours eggaguñu ñu gaaw defeere téye xale bi defeere ko te instant bi nii waa ji nga xam ne moom moo porté plainte ñoom itam seen bopp porté nañ ko plainte seen plainte boobu eggagul fu mu war a egg waa ni nii na Tamba ba mu ngi nek ci yoonu genn réew mi mu nek lo xamne vraiment dañ koy déplorer bu baax di wax ne wax deug yalla justice bi euh, wolu nañ ko bu baax baax mais dañ koy ñaan itam buy buy buy doxal aussi ñu sóoraale ci bu a baax ak ak yelleefu doomu adama parce que té nit du tiaxan tay jabaram mu ngi ni famiyam mu ngi mënu ñu nelaw jour bobu non dañoo nek ci guddigi gi kenn xamul fu muy fu muy ci nek ñu nek ay xalé nit ki bokoy té nit dafa am doolé ak ay yelef doomu aadama dafa am solo boo koy téye nan ko nang xam du daw mu ngi yore place am mu ngi am njabootam du daw du dem fenn mais mën nga def ndànk-ndànk ba nga xam ne am nga lu nga xam ne doy na la ci nga téye ko te boo koy téye aussi nga téye ko ci téyin bi nga xam ne téyin bu gën a rafet lay doon parce que doomu aadama dañ ko war a ormaal loolu loolu jaaduwul loolu jaaduwul te bu mu bu loolu amee man am na kenn ku ma un inspecteur un adjudant bu yore enquête bi à la à wax naa ko ko waxtaan jokkoon nañ ci parce que demoon naa foofu ñu mu en tout cas jot na convocation am kon bu ko bu ñewul il va rendre compte au procureur te yaakaar nañ ne procureur bu fekkee né également euh, yegna lolu loolu na dina ci jël matuwaayam te na lolu la ñuy xaar ci mom parce que itam moñu fi togal te mom rek lañ yaakaar pour mu mëna wax également fan la dëgg bi fan la dëgg bi fété wa procédure bi ma leen di teg moy de un xamal leen né seen i droit da ngeen ko wara a ba mu jeex te ñun dañu am ay papiers yu ñoo aussi am nañ ko ñu koy top. tey ñoom nekkuma juge pour wax ne ñoo am dëgg mais xamna né ci luñu ñu lu am solo la parce que tay am nañu benn acte de vente bi nga xamné place yi nga xamné mom lañuy la ñuy xëccoo seen tur yaay moo ci nek seen tur yaay mo ci nek té acte bi mu ngi daté depuis 2011 mu acte de vente bi nga xamné ne de justice de ka de ka da signé. je vais pas citer son nom mais juste papier baa ngi fi huissier de justice de ka signé ki nga xamné mo représenter mairie bi da ka signer acheteur bi moy sen yaay da ka signer le Mamadou ki kene am na aussi je pense que mairie la nek da ka signer donc mu nek ay signature yu nga xamné nek na ba 6 signatures 5 signatures ak ak signature huissier de justice depuis 2011 te ki nga xamné tay tey moom moo ne moom place yi ci papier yi ñu gis luñ ko propriétaire mais occupant lañ ko defal à la mairie occupant lañ ko defal ci am mu am benn attestation bi nga xamne defuñ sax numéro de cantine té fini nii benn cantine lañ ko defal ci occupation bi benn bi defuñ sax numéro té lepp 2021 la ma yaakaar ne su fekkee né dañu am kit yi nga xam depuis 2011 la mu jaar yoon ba ici de justice nga xamne ici de justice nga xamne état fu mu tek tampon am rek état mo fa tek tampon ma yaakaar ne bu fekkee nit da ka wara dem ba dine moko mom da ko wara tek ci lu leer nañ mais mënu ko teg ci ay 2021 mënu ko teg itam ci d'après li ñu lu mu wax que ne yaayam moko ko may yaayam moko ko jaay même bu fekkoon te yaayam de que ne maa ko may ci loi ci droit may bobu valable parce que loolu ça doit se euh, euh, symboliser par un acte de de de vente voilà, au moins benn benn témoignage bi nga xamné day am également signature yi nga xamné comme maire bi du mu amoon fii loolu la wara am pour mu jaar yoon. légui nak dañuy interpeller mairie parce que dëkk bi ñun ñoko mom te dafa am lo xam ne mën na taal réew te gis nga mbokk likoy koy tas yaakaar naa ne képp ku nga xam ne yaa def lo xam day tas mbokk yakarna naa ne yow momu yow tu es un poison pour la population tu es un poison pour la société mairie bi nañ jël responsabilité nous interpellons directement le maire na jël responsabilité parce que gis ñu fi signature maire ay PO lañ fi gis mën na am nak mom mu baña yek li xew mën na am mais le maire actuel peut-être fekkewu ko peut-être fekkewu ko mais ni ni mo fi nek et puis l'institution, c'est une continuité. Même si Fekene, ce n'est pas sous son, sous son règne, mais du fait que mon fils n'est que légui, mon mot règle l'affaire. Nous avons l'air de faire des choses qui nous ont Nous juger, mais qui nous ont qui, qui date de 2021. Qui nous ñun mënuñu ko jënd ak kayit bi nga xam ne moom la ñu gis fii ci maire bi mu jënd ko en plus des témoignages tey demal marché central nga laajte kan mooy Diedhiou ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne moom moom place yi te loolu na du tey du démb kon nag ñun xam nañu ne dëkk bi lu ne mën na fi am mais dëgg rek mooy mujj te ñun nag fu ñu dëgg fekk foofu la ñuy foofu la ñuy bàyyi na mairie bi leeral bu baax a baax bu ko deful yaakaar dossier bi day dem ba ci kaw parce que ñun aussi duñ ko bàyyi noonu bu fekkee Tamba mënuñ ko régler on va aller à Dakar dans les juridictions les plus les plus les plus les les plus les plus hautes on va essayer également de de de de poser le le problème à ce niveau là parce que tey famille baa ngi nii bëgg na am avocat mais mënuñoo sax am avocat bi nga xam dafa parce que déjà ça coûte très cher mais loolu yëpp dafa nek li nga xamné déjà day fay gangréner vraiment li ñuy wax les droits humains motax li nga xamné mom moom indi genre ni dañ la wara a ci mairie bi yoon daan len bu féké lii faux usage de faux la war nañ ko top té ñi nga xamné ñom ñoy responsable ku ñu mënd di doon nak war nañ leen top ci yoon tej leen yoon def lu mu war def parce que ñi tay jaxlé nañu nelawuñu sen tension yegna sen famille tasna na franchement lenn indiwu ko lu dul li nga xamne mom mom la wax sank ay këyit yi nga xamne am nañ ko ci amine yo xamne ñepp xam nañ ne do amine bu jaar yoon parce que li maire bi kese mo nekkon ki nga xamne mo habilité pour mën joxé cantine yi te bu koy joxé da kay joxé ci këyit yu leer nañ te lolu amul mairie nak mën nañ defar ay këyit mais defar bobu mënul ta tax ba mu mën mom place yi li ma jaaxal nak moy nan la këyit yi mën démé euh police mën fa jaar ba dossier bi jàll te ñi waxon nañ mën def confrontation wala ñu dem ba à la source parce que kayit du kayit original yi du kayit original yi parce que place yi gis gom na mala ko waye sank signature yep mom ci tour maire bi la nek te ba legui gisunu benen kayit bi nga ne maire bi signé wat na ne mom mo jaay place wala mom mo may place kon nak na yoon def liggéeyam bu baax a baax te xalé bi ñu japp aussi ñu def le tour ba gaaw ko libérer bu fekke après nak parce que waron mën nañ ko libérer le temps que mbir mi di leer parce que dañu yak dañu yakane procédure bi dañ ko gawante parce que waji bëggon na ñibi il faut que ñu def le tout ba mu dem ñibbi ci ginnaawam même bu ñibbee sax dañuy lancer un appel un un un appel à ce que autorité jël seen matukaay mais même pour des des ñëwaat mu ñëwaat parce que il faut mu régler faut ñu régler ko parce que qui tey mu ngi bàyyi place am te moo nekkoon soutien de famille bi te seen yaay dund seen papa dund loolu yaakaar naa ne lu doy le la lu ñu war a xoolaat la bu baax a baax. waaw xam nga loolu euh, mënu rajo mënoon na def mais je pense que moment bu ñu nekk nii day xawa jafé lool parce que bu ñu demee ba mu am ay arrestation buñ suis déjà déjà emprisonnement yaakaar naa ne waxtaan mënatul nekk foofu léegi kay dëgg bi rek moom mën a feeñ bu dëgg bi feeñee nag baale mën na après bu dee baale day am après mais il faut que dëgg bi taxaw exactement ñan place bi ñu teg ko ci loxo ñi ko te ñun lu ñu parce que seen yaay moo ko parce que famille mais quand nag moom moo ko totalement lolu mom nekkul li nga xam mom moom la ñu la xel mën a nangu donc euh, lolu moy suñu taxaway na yon def liggéeyam ki d'abord balaa ñuy wax dara nañ ko libérer alalu yaayam papam yaam la la la la jaay en consentement avec sa famille donc lolu yakana ne mo nek d'abord euh, lu ñu war demander à ce que vraiment ñu libérer ko le temps que ñu leral affaire bi euh, comme ça na bu paré nak li gën moy ñu defar digënté bi parce que famille dara jarul aussi ñu koy ñu koy tas loolu yëpp ñu ngi lancé appel vraiment autorités yi ñu gëstuwaat bu baax a baax affaire bi ay jigéen lañu amuñu fësuñu ci kenn wax dëgg yàlla affaire bi dafa doy waar lool.